salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice su réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci euh, réew mi FM mercredi bu jot 15 jàpp 16 euh, tey ñu dalal ñaax Michel euh, Ngor di yëngu ci wàllum agroalimentaire ñu nar fee waxtaanee solos consommer local mbokku déglukat yi laata ma koy jox kàddu gi Mor Fall yaa ngi fi. ba bàyyi la nga ñëw ci mbokku déglukat yi ñëw ci rubrique actualité. waaw ah, voilà lay nuyu di nuyu suñu invité du jour di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo euh, seetaan ak di ñu déglu fi nga xamante ne moom mooy réew mi euh, donc di leen jaajëfal saa su nekk si émission euh, Espace Jeune. Mm-hmm. lu gën a fës. waaw tey nag euh, li gën a fës moom mooy euh, ci euh, li nga xamante ne moom mooy prime bi nga xamante ne moom la Macky Sall jox ñi nga xamante ne moom mooy Lions yi mu toll ci cinquante millions ku nekk ak ñaari terrain donc mu nekk loo xamante nii am na ñoo xamante ni ànd nañ ci mais am na ñu bëri ñoo xamante ni aussi ànduñu ci lool nga xamante ni moom moo nekk ci prime boobu nga xamante ne joxe na ko parce que ñu bëri ñoo jàpp ne dafa jéggi dayoo parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni war nañu mën a jox ci li nga xamante ni moom mooy prime yi te joxuñu leen donc même fekkee Sénégal jël na ko bi aussi war nañoo jox euh, ñu bari bëri ñoo xamante ne wala ñu primé te primé ne ñoo nekk euh, ci côté armée bi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci yeneen ay jaloore te ay prime donc ñu jàpp ne affaire dafa xaw a jéng tuuti même fekkee ñu ci gën wàll gi rafetlu nañ ñi nga xamante ne mooy euh, président def na ko muy prime bi mu joxee gu ni donc leneen li moom mooy li nga xamante ni ñaax na leen na leen coupe du monde bi ñuy ñëw bëgg nañ ngeen dem sax ba demi final loolu aussi mm. ñu bëri jàpp ne ñàkk ambition la ci président Macky Sall di wax ne Euh, li nga xamante ni moom mooy euh, na gaynde yam ci demi-finale li nga xamante ni moom mooy euh, coupe du monde bi ñëw alors que ambition waroon na leen jox comme coupe bi ne andi leen ñu coupe du monde donc bu nekk actualité bi nga xam ne moo gën a fës ci li nga xamante ni moom mooy journée bi. Sénégal mooy dëkk boo xam ne boo defee ñu wax moo deful ñu wax. ah déet mais nag dañoo def lu rëy ku def lu rëy nag. Eh. am lu rëy. parce que parce def nañ lu rëy. Ah, athlétisme def nañ lu rëy. ñeneen def nañ lu rëy ñooñu ñoo jiitu coupe. est ce que xam nga prime yu mu leen jox ce n'est rien du dara par rapport. ñoom ak ñoom ce qu'ils gagnent dans le club même si Sylvie même si ce ñi nga xamante ne ñoom ñooy aar dëkk bi di di armée bi dem ñu dag ñu dagg sa taabal dagg sa loxo ñoo ñoo gën a ñoo ñoo gën a mérité ay ay kii ñu ñu am nañu am ba noppi milliards sax mérité nañ ko tey Macky Sall bu la ko waxoon ah, ah, ah, ah léegi kon ñu jox leen milliards léegi bàyyi suñu suñu waa armée bi wala waa armée bi ne nañ bàyyi frontière noonu ñaax Michel Ngor <laughs> maa ngi lay nuyu di dalal suñu plateau ma bàyyi la nga ñëw teg mbokk auditeur yi laataa ngay joxe sa xalaat ci rubrique actualité bi Euh, salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñi ma ñi fi teew ñëpp maa ngi ñuy déglu maa ngi nuyu Sylvie euh, maa ngi nuyu tonto Actu mhm. maa ngi nuyu bon réalisateur bi. Mhm. ok. sa xalaat rek prime nga xam ne jamono ji jur na coow cinquante millions da di xaalis. waaw man moom dama ne bi Sadio Mané dugalee bii boobu noonu li ma santi noonu. su ma amoon cinquante millions sax may leen ko. Mhm. man sama bopp laa koy gisee ah. voilà waaye léegi après bon euh, c' est le président il a choix. mais man aussi ñun aussi cinq soxla nañ cinquante millions. Mhm. après on va voir bon après ils nous ont la coupe nañ ko bien ah. parce que mosul ñëw c' est quelque chose boo xam ne rëy na. Mhm. waaw man sama bopp laa koy gisee su ma amoon cinquante millions moom may léegi noonu ku def lu rëy da ngay am lu rëy def ñu dara lu rëy waaye Macky Sall man rek laa ko meree fu mu leen ne ñu egg au moins demi final ñun ñuy yëwtu ji coupe du monde mu naan demi final waaw ah, bu ah, bu boobaa mu mu jël Sénégal jox leen ko. voilà ñaax Michel Ngor merci beaucoup merci beaucoup d'être là euh, ñuy waxtaan solo sa consommer local yéen ngeen yor ab entreprise euh, Mbogotaan euh, lan moo waral tur bi Mbogotaan. Mbogotaan mooy. turu séeréer la mhm. déjà dañ nekkoon réunion de famille euh, famille bi ñu tuddee seen bopp Mbokotaan léegi bi ñu toogee lu yàgg bëgg a benn entreprise mhm. maire bi ne non il faut ñu tuddee ko Mbokotaan mhm. léegi après Mbokotaan moo séeréer boo xam ne dañ naan mbok otaan inoo mbogu otaan genre euh, ñun ñoo bokk euh, famille bi ñu ñoo bokk fi ñu juddoo loolu la quoi les personnes de même famille souvent gis tour de famille tour de famille de am ku nekk famille am mais man mm-hmm. noonu la tuddee quoi mbokk genre genre genre mbooloo quoi. waaw genre mbooloo. moom mm-hmm. la tuddee quoi léegi nag on a un peu. rimé ñoo bokk lépp. ñoo bokk lépp quoi. Mm-hmm. maintenant soo ko wax les gens disent mbokkotaan mbokkotaan léegi nag soo ko tasee tu comprends maintenant mbokk otaan. ñu bokk quoi. léegi le céréale vient pour accompagner pour gunge suñu produit yi. roy fonde soomi laax caakiri nga laax ca rek <laughs> kañ ngeen taxawal seen entreprise bi. Euh, maire bi yàgg na jaaya ah. maire bi yàgg na jaay cere depuis xale. Euh, moom euh, cere bi moo fay sama école sax. Mhm. cere bi yàgg nañu jàppale léegi bi ma amee bac. ma ne cere bii nii mun nañ ko war a va war nañ ko mun a valoriser. Mhm. parce que ñi koy jënd bëri nañ ñi ko bëgg bëri nañ. léegi pour pourquoi pas ñoo xam ne nekkuñu fi ñoo xam ne sori nañ ñu mën a gis produit bi te mu produit dama koy consommer loo xam ne na ko gis mu baax si yow da nga koy def pour ñeneen ñi mën si soxla ñeneen ñi mun si jot. Mhm. léegi nag jël produit bi jàppale maire bi. Mhm. mu gën a am visibilité. mu produit bi gën a accessible ñun aussi dañ doon def euh, kese. Euh, cere bi cere taliba mm-hmm. euh, pharmacie Bousso Dramé intervient lañ doon jaayee mm-hmm. foofu lañ doon jaayee léegi cere bi nag dañ koo def mu wow comme tey kon léegi dañ koy def mu wow pour mu yàgg consommation jour le jour ngeen doon waaw consommation jour le jour guddi sa guddi dañuy dem jaay ma yónnu cere bi romb terrain bi gars yi di ma ini waaw mais pas cere pas cere a léegi au fur ñu jël toog waxtaan ne nan la def pour cere bi mun na durer te aussi nit koo xam ne soxla na cere nekku fi sori na mu mun a euh, jot ci cere ji ak ci caakiri bi ak ci araw bi. Mm-hmm. te foofu lañ commencé depuis 2019 euh, formalisé nañ euh, si mbogotaan bi mais yàgg nañ jaayu cere ko. ndax ndax li nga xamante ne moom mooy jaam ci dafa nekk euh, benn genre euh, koo xamante noonu la demee Euh, ba mu dem benn instant clientèle bi bëri ngeen ne kon comme que bu bëree parce que nga def quantité boo xamante ni daanaka nit ñi du leen xaw a doy foog ñu créer loo xamante ni nit ki bu jëndee dina mën di consommer euh, euh, loo xamante ni d'une durée illimitée. waaw waaw début bi dañu doon jaay si buntu kër ga. léegi au fur et à mesure ñu dem ñu jaay si taliba si benn ruq. Mhm. côté 21. léegi mhm. au fur et à mesure ñu dem aussi euh, parce que yàlla su gisee li ngay def am nga si kii rek mhm. après ñu. am produit tegal tegal produit ah, je pense que après ñu jël si ay images pour kii quoi. c'est vraiment dommage ba tey amuñu direct. pour góor la moo koy defar. avec ses propres vraiment c'est propre. ak mère Thierry quoi. def ça a vraiment bon. oui est-ce que yenn ci yi kese ngeen yem dool leen ci dool yi ay soow. waaw dañuy def euh, cere mais bon balaa may jeexal ma tontu question. Mhm. tonton mhm. bon euh, léegi ñuy def euh, jaay ci taliba après mu dem ba léegi dañu naan mer cere soo gisee suñ ma gisee wala sama frère yi dañu naan kii doom mer bi jaay cere la. léegi bon loolu mënoo ko bañ parce que yàllaa ko def. Mhm. suba dañuy naan ki doom mère bi jaay caaf wala tout ça. au loolu moo ñu motiver quoi léegi caakiri yaa ngi cere bi. ak araw bi sànqal bi mhm. caakiri soow moo tax mooy may naan luy fonde soow mi laax caakiri nga laax mais début début bi cere kese la woon ko après ngeen dem cere kese la woon ah. cere caakiri la woon ci mhm. siwo cere bi mhm. siwo la nekkoon caakiri bi caakiri bi si siwo la woon cere bi si leket mais ban façon cere la woon cere laalo cere càkk cere laalo la woon hmm, cere laalo ngeen doon jaay après mais benn instant di kii ne man cere bu amul laalo laa bëgg ngeen di innové ba innové voilà cere bu amul laalo après ñu wootee naan yow am nga araw bon maire bi ne bon mun naa araw mais fàtte naa après après au fur et moom mu jëlaat. Mm. génn a kan moo la jàngal yow ku la jàngal. waaw maire moo ma jàngal début bi euh, léegi dama dem euh, Ziguinchor euh, ak formation Ampa Awaña jàng foofu noonu si si université bu Bignona bi jàng foofu noonu gën a mën fonde maa ngi nuyuwaale sama waa promo. loo jàng université Bignona. waaye jàng aro fondé. araw fonde laa gën a parfore wu ak cere ak caakiri gën a parfore gën a gën a mën ko gën ko gën ko mën daa te mhm. bi ma ñibbisee euh, bon wax naa mère bi ne mais li ma jàngal am na nu ma si yokk de mais non ba mënoo dara dem nga foofu un mois mais benn jour dama ma jox parce que dañoo mën commande laax bu um, bu xam ne genre dafa dafa jàmpoon. ma jël lekk ma ne ko mère sottil ma mu sotti ma commencé dóor commencé dóor dóor dóor après mu mokk ñu weer ko après depuis lors su ñu amee commande rek parce que dañ doon woo ñeneen ñu defaral ñu. Mm-hmm. su ñu amee commande mag moom ñoo si songu. Mm-hmm. ak euh, tatajo ñoo koy defar ba. waaye. Mm-hmm. c'est super. Euh, yow affaire bi nga nekk góor di yëngu ci liggéey boo xam ne jigéen ñi lañ ko gënoon a xamee. Euh, qu'est-ce que ça te fait. oui oui parce que ndax duñ lay tooñ déjà parce que déjà yaa ngi ne dañu naan doomu mère bi jaay cere la. <laughs> oui début bi loolu la parce que euh, ñun dañaa nekk ci mouvement jeunesse yi moo ñi gën a may leadership boo xam ne ñii li ñuy wax duñ leen déglu quoi. da ngay am esprit de dépassement te aussi bon da gis ñi ñoo xam dañu lay motiver parce que dama woon ay xarit yoo xam ne cuistot lañ def restauration man certes communique informatique laa def. mais ñoo la ànd ñu may motiver di ma wan ñoom aussi ñuy ñuy togg mais bon pourquoi pas man aussi ma gën a am jom si li may def ko mhm. léegi ma dem jàngi togg jàngi def léegi ñu ubbi genre euh, service traiteur boo xam ne laax la ku bëgg laax ngénte ñu toggalal la mhm. ak ay góor la parce que première fois bi ñu gisee GMG bi gis ay góor kese ñi dañuy xool quoi ñii dañuy xool les gens un peu surpris. Mhm. waaw yaa dañaa jaaxle woon. yi def ay laaj mais voilà voilà ak équipe bi yëpp ah. mais bon biñ ñamee xool ko xam nañ ne lii moom baax. Euh, c'est un produit de qualité quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw voilà bu mel ne am na sa gars nuyu instant bi ci mel ne Moustapha Sy le milliardaire mi ngi lay mm-hmm. nuyu à la page. nous sommes en direct ñu mën a gis euh, les produits. Euh, donc li nga xamante ne moom mooy mooy araw bi parce que araw araw bu sew ñu ne la mënuma araw araw araw parce que ni ñu arawee laax ak ni ñu arawee caakiri ak arawee bokkul. donc yow yow mi nga xamante ne góor nga est jàpp nga ne yomb na parce que ñu ñu ñu ci Euh, li ci wër coono bi ci wër def dëgg dëgg dëgg duñ ko si def donc yow mi nga xamante ni euh, góor nga boo gisee euh, li nga xamante ni moom moom mooy yéen produit yi ngeen ngeen koy def mais pour ñu jàppale leen dëgg dëgg dëgg dëgg parce que sa Sénégal boo nee céréale locale rek daanaka dañ koy xaw a xaw a néewal doole tuuti parce que dañuy jàpp ne juste lu xaw a ñu ndaw ñoo koy consommer alors que ñu nekk à l'extérieur dañuy soxla produit yu ni mel mais pour ñu am accès jafe-jafe la donc yow yow mi dund ci li nga xamante ni moom mooy liggéey boobu muy wàllu araw laax bi araw li nga xamante ni moom mooy Euh, sànqal bi araw li nga xam ne moom mooy cere bu sew ak cere euh, caakri bi est-ce que est-ce que yomb na est-ce que yomb na liggéey bi yomb na dëgg-dëgg. non liggéey bi yombul liggéey bi dafa métti déjà araw soo koy defar benn côté ngay toggee soo toggee benn côté genre euh, bool bi ni nga koy téye wala genre. kon fi nga defaree mm-hmm. di di dóor di dóor loolu day métti ndigg su nekkee mag kon kon kon mënoo mënoo changer loxo quoi. waaw waaw bon am ñoo parce que droitier la man droitier la am ñoo xam ne souvent mën nañu góos juraat mais soo benn pied. Mhm. man loolu laa njëkk remarqué. Mhm. métti tu ndigg. parce que souvent ñi ma daan arawal suñu paree Michel sama ndigg day métti man dama disais que ñi ñu dañuy rek mais bi ma ko defee dama <laughs> day métti ndigg mm-hmm. sérieusement caakiri bi nag loxo bi quoi parce que caakiri c'est un travail manuel mm-hmm. loolu laa bëgg fàttali gars yi liggéey loxo moom dafa métti kon mm-hmm. lépp lépp lépp lépp loxo moo koy def amul amul amul machine boo xamante ne mën na remplacer kii machine bi sachet machine bi sachet lii kese mais bon euh, am na ay machines yu koy def mais machine yi dafa machine yu mag ñoo koy def Mm-hmm. machine yoo xam ne mun na produire lu bëri mm-hmm. mais euh, machine ak loxo bokkul mm-hmm. soo bëggee satisfaire nit ki xam sa loxo parce que nit ki damay defar caagri soo jox ko mu ñam mu ne Michel fii jaaroo fi de. Mhm. wala euh, fii maire bi jaaroo fi quoi. c'est vrai liggéey loxo ak liggéey machine <laughs> mm. bokkul. voilà c'est ça bëgguma def euh, publicité boo mm. gisee. Euh, Pierre Ndiaye sa mm. particularité moom loolu la entreprise bu mag la yor mais tout se fait à la main ay femmes lay jël ñoo koy defar comme Michel nu muy def nii loolu moo tax tey ñëpp ay produits moom la ñu taamu mm-hmm. donc li ngeen def am na solo est-ce que yéen a ngi ci employé ay jeunes waaw parce que ubbi entreprise c'est bon mais il faut créer de l'emploi. waaye effectivement te loolu la ñu loolu gën a tax ñu ñëw fii parce que euh, entrepreneuriat dafa nekk loo xam ne on crée mhm. quelque chose. da ngay créer dara pour ñi ñi mun a ñëw. Mhm. léegi bi ñu créé Mbogotaan euh, am na ñoo xam ne dañ kaa dañaa ñëw rek parce que bon concept de la neex ce sont des bénévoles ñoo xam ne équipe bi la dañ kaa bëgg te aussi. Euh, am nañu ay livreur am nañu ay livreur xam ne euh, bés boo defaree caakiri bi bés boo defaree caakiri bi parce que fi nga koy jëndee déjà fi nga koy jëndee la personne nit ki da koy jox xaalis. Mm-hmm. Euh, fi nga koy jëndee après au fur et à mesure ngay dem processus bi dafa gudd da ngay jënd dugub bi wol ko soo ko walee en plus kii kii wol aussi da koy jox xaalis. Mm-hmm. parce que soo toogoon kese di liggéeyal nit. loolu yëpp dina si fekk waa mm-hmm. chaîne bi yëpp tu participes au développement bon local et au développement. de notre pays si suqali suñu goxan ah. mm-hmm. parce que processus bi ñuy def moo gudd mm-hmm. te aussi dañuy employé ay jeunes dañuy employé ay jeunes euh, jeunes yoo xam ne dañaa bëgg liggéey jeunes yoo xam ne dañaa bëgg livrer jeunes yoo xam ne euh, seen bëgg-bëgg rek moo leen tax a jóg pour ñu jàppale Mbogotaan parce que euh, benn grand moo ma doon naan garab benn graine soo ko jëlee ba saxal ko garab bi su defee ay frie ñëpp si bénéficié wu. Mhm. léegi nag ku nekkee arosé mhm. chaque jour euh, su ñu événement ku nekk day ñëw arrosé te ñooñu ñëpp maa ngi di remercier ba bu ñu arrosé ba mbokkataan sax ba rëy ñi ñëpp si bénéficié wu. loolu dëgg léegi emploi bi noonu lay demee parce que on crée des actifs. actuellement ñaata mhm. euh, ngeen employé. waaw am nañ trois yoo xam ne euh, permanant la. am na bon trois yoo xam ne permanent la am nañ ñoo xam ne aussi ils dañuy ñëw liggéey après dem. Euh, <clears throat> am na ñoo xam ne aussi saison sont des livreurs am nañ trois livreurs yoo xam ne ñu ngi si tali bi instant mhm. bon mhm. yàlla na yàlla aar mhm. parce que c'est pas c'est pas facile quoi. mais dina am ñoo xamante ne ay emploi saisonnier leen mais lu mel ne. période Pâques ñëw ngeen ngeen soxla mais pour ñu jàppale leen ci. arobe yu ni mel ngeen ñu ñëw liggéey ñu fay leen aussi. waaw loolu tam xëy ñu mel. voilà voilà surtout ay ay maire parce que euh, sooy commencé. ñi nga ñi la ñi la wër ngay commencé quoi ñi la wër ngay waa kaay jàppale ma après nga jox ko dara. Mhm. am ñoo xam duñ laajte dara day ñëw rek participer. Mhm. si parce que gis nañ concept bi neex na leen. Mhm. xam nañ ne dina jëm kanam ñu ñëw participer. am ñoo xam dañ leen di woo nag ñu ñëw liggéey jàppale parce que pack bi commencé nañ production bi euh, clients yi dañuy laajte caakiri bu bëri. maintenant dañoo bëgg client yëpp mun a ñam. ñaar mën a am si caagiri bi. combien combien de kilos euh, de céréales parce que yéen vous utilisez le mil. dugub bi kese ngeen utiliser n'est-ce ak le maïs aussi pour le euh, pour cere bi. Mm. ñaata ngeen di produire par jour. Euh, bon damay commencer si production pack bi passé production pack bi passé produit nañ huit cent kilos caakiri. Mm. huit cent kilos caakiri boo xam ne jaay nañ ko client yi. léegi ren aussi bugg na ñuy jàppalee ñu. Hmm. pour ñu produire pourquoi pas 1000 kilos. Hmm. boo xam ne euh, ñii euh, ñii ñii ñoo koy ñoo siy bénéficié wu. Hmm. te dugub bi aussi on achète dugub bi dañ siy jënd lu bëri. dugub bi on achète à peu près 500 kilos yoo xam ne.

école bopp nga xamante ne fa ngeen jëlee seen produit yi. waaw waaw si loolu noonu parce que chaque année dañuy fixé ay objectif chaque année parce que bi ñu commencé 2019 dañuy tas produit yi euh, boobu commencé ku ñoon Po Caakiri yi léegi après 2020 on s'est dit que Po Caakiri yi lay lancé léegi 2021 on s'est dit événement yi événement bu munti am dañuy dem loolu mooy cinq suñu objectif suñu objectif mooy euh, pour que produit mun a nekk si certes nekk nañ si hypermarché yi produit mun a insérer si hypermarché yi produit inséré si hypermarché yi maintenant à la fin de deux mille deux deux mille vingt deux ñu xool supermarché yi parce que loolu bu nekk suñu objectif parce que bu ñu jékki-jékki euh, bon jëlandoo lépp quoi. parce que mm, day métti waa jàkki-jàkki léegi après euh, euh, conseil technique bi staff technique bi dañuy am initiative yoo xam ne. jënd tool la soo jëndee tool am machine décortiqueuse machine buy wal mhm. parce que loolu yëpp ci chaîne bi la machine buy wal machine buy wal soo ko amee nga am tool euh, soo amee tool aussi ci cela au fur et à mesure dem ba indépendant mhm. léegi loolu moo ñuy permettre que ñi ñuy jàppale ñu parce que ku nekk am na limite instant foofu mooy suñu limite mhm. parce que y a des gens qui nous am na ñuy dimbale marché ñoo ñoo si revendre direct léegi nag suñu amee tool aussi hmm. am machine décortiqueuse am benn local boo xam ne c'est totalement local genre produit locaux la. Hmm. produit locaux parce que produit locaux ñii soxla nañ ko mais. Hmm. accès bi moo moo moo métti quoi. léegi loolu mooy suñu objectif dans cinq ans. dina ñëw par la grâce de Dieu. est que mën nañu am une idée de votre chiffre d'affaires annuel. Euh, notre chiffre d'affaires annuel bon. Euh, bah, ça serait difficile de, de pouvoir euh, d'en parler parce que on travaille avec des cabinets yoo xam ne

boo xamante ni nit ñi dañ mën a xam ne produit bi nii la wala ngeen def exemple tuto yoo xamante ni dañ ko mën def nit ñi euh, di ñëw di di di renseigner seen produit yi ku ci bëgg a jënd ak une mel affaire mm-hmm. effectivement parce que damay commencer ci Instagram bi parce que dañaa xool suñu client yi fa lañ nekkee. Mm-hmm. suñu client yi fa lañ nekkee ak ñi jënd produit bi. fa lañ fa lañ fa lañ leen mën a fekk. mooy mm-hmm. déjà Instagram. Instagram euh, ñu ngi foofu nu boo ko naan céréale. soo diggee di nga gis à une bi. Euh, aussi ñu ngi TikTok parce que am ñoo xam ne jànguñu hmm. euh, bon ñu bëgg a gis nit ki di defar cere nit ki di togg cere ñu koy bëgg hmm. après ñu woo la aussi ñu ngi Facebook euh, léegi euh, on va comme objectif yi nga waxoon sànq hmm. créer site web créer nañ site web hébergement bi moo des les hébergement bi on cherche les personnes yoo xam bés bu ñu héberger héberger site bi site bi fu muy nekk ñi mun nañ commander ñii mun nañ commander facile yombal leen. Mhm. commander seet mën nga créer site bi. Mhm. après bon ñii gën a dem WhatsApp. Mhm. parce que ñii WhatsApp ngeen ni message ñu ñu commander la WhatsApp. am ñoo xam ne day métti ñu dugg ci site bi connexion bi. Ah. ñu nekk ci village yi. ñoo xam ne bon dañ lay woon nee na WhatsApp laa lay wooye WhatsApp moo gën a gaaw. foofu circuit yooyu noonu la ñuy xool pour mun a càmbar fa la ñuy fekk. Euh, ñiy jënd. client yi. leer waaw mais foofu yooyu yooyu spécialisé côté boobu. waaw waaw man maa fa nekk man maa fa nekk léegi bon am na Vincent moo nekk côté produit bi si boppam produit bi si boppam. Mhm. Euh, nit ak nit ah parce que am na nit ak visuel. Mm-hmm. visuel bi man maa ko am na koo xam ne Vincent la tudd. Mm-hmm. mooy gérer mm-hmm. produit bi na nañ jëf pour jaay ko. produit bi suñ toogee mois boo xam ne. ina mois bi moom mooy gérer publicité bi. voilà mois bi moom seetlu nañ ne euh, araw bi doxul. doxul caakiri moo gën a dox voilà bon moom mu euh, moom mu trouver solution. pour mun a jaay. pour mun a valoriser. cere bi. Euh, léegi instant bi deux mois yi di ñëw caakiri moo di. léegi euh, dañuy xool na la def pour yeneen produit aussi mun a dox. mais mais mais aussi am na stratégie booy a dox. Mhm. période yooyu nit ñi dañuy jënd yenn produit yu bëri bëri ko utiliser est ce que def ngeen dem ngeen ba am diagnostic bi xam ne produit bii moom mooy gën di jar euh, période bii période bi nga xamante ne nekkul période nawet euh, dugub du bëy noonu bii mooy gën a dox est-ce que yooyu yooyu yëpp yéen a ngi koy yéen a ngi koy yéen a ngi koy def hmm, waaw waaw soo duggee suñu Instagram automatiquement euh, par mois la soo duggee suñu Instagram automatiquement hmm. liy dox si mois bi hmm. day génn nii yi dox si membre day génn eh, période koor gi caakiri soow mooy dox guddi gi gars yi dañuy bëgg caakiri couchant bi mhm. instant bi deux eh, yi di ñëw araw bi caakiri mooy dox mhm. comme pak baa ngi ñëw léegi automatiquement caakiri bi diggante parce que ñaari weeru koor yi dafa tombé je pense mhm, léegi boo mënoon ngay insérer caakiri soow bi automatiquement su jeexee rek avril lañ nekk avril ñu ngi waajal tam xarit ñu ngi waajal leen événement yi te aussi ngénte yi tàngoor bi yu bëri dañuy dem ngénte maye. Mhm. genre dañuy def ay sarax. Mhm. mais maintenant araw bi moom mooy gën a dox. mais lépp day nekk benn genre sur sur stock boo xamante ne dañ a am mhm. euh, euh, les auditeurs qui nous ont pris en cours yéen ngi déglu seen émission sans filtre ñu dalal ñaax Michel Ngor euh, yëngu ci wàllum agroalimentaire ñuy waxtaanee solo sa consommer local Michel gis nañu waa Sénégal ñoom yemul sax ci lekk bi mais tout ce qui est fabrique fabrication locale sawaruñ ci euh, tout ce qui est fabrication locale sawaruñ ci yow nga yëngu ci wàllu fabrication locale lan nga jàpp ni moo tax sénégalais ñi préféré produit yu jógee extérieur bon mun naa ne sensibiliser wuñ leen depuis le début sensibilisation la te aussi jàngal la jàngaluñu loolu noonu mm-hmm. jàngaluñu bëgg loo xam ne euh, ñu ñoo ko togg euh, bon man balaa may xam li nii mm-hmm. guddi gi local ngay lekkan wala début mais au fur et à mesure may dem ma xam loolu noonu guddi gi day diis. léegi euh, les gens nii ñu ngi commencé ñëwaat. Ah. soo seetloo mer laax yi marché yi mer laax yi euh, aussi euh, fond mboq bi gars ñu ngi koy commencé consommer. Mhm. léegi bon habitude yi ñu ngi changé parce que début bi ñoo ko nit ki loo moom voilà bon. début bi loo moom doo xam valeur bi. Mhm. léegi ñii ñu ngi comprendre fon ne bokk bi mu ngi dox. Mhm. Euh, laax bi mer laax yi si koñ yi ñu jàppale mer laax yi aussi. Mhm. parce que laax cent franc laax deux cent nga lekk ba suur aussi yombul quoi. loolu ma loolu est-ce que si qualité produit bi. surtout loolu nag parce que suñu premier objectif wala suñu première vision mooy fournir un produit de qualité. parce que caaxari bi nii ak cere bi soo ko gisee. leen kese moo ko mën a yàq dugub bi ba boo ko sebetee euh, da ngay gis suuf si. Mhm. suuf si day nekk si kaw ak cox bi. Mhm. loolu mooy tax ñu bëri seen biir di métti parce que dugub bi ci suuf la nekkee du loo xam ne ci suuf la jógee genre soo si defee ndox il faut nga jël sa temps. nga nga bàyyi ko mu dal soo paree nga sebet ko. Mhm. processus boobu noonu ba boo ko manqué rek. produit bi day foiré genre day foiré ba pare. léegantoon instant bi instant bi ñu koy sebet ak instant bi ñu koy jënd aussi parce que mun nga jënd dugub bu ñu soqul pour pour gagner plus d'argent mhm. parce que dugub bu ñu soq moo gën a cher que dugub bu ñu soqul mhm. dugub bu ñu soqul ngay jënd bon nga ne man du ma ko lekk ah ñeneen ñi ñoo koy lekk mhm. nga transformé ko ñii duñu gis ñii duñu gis cox bi produit bi su paree ñii duñu gis cox bi cox bi si biir produit bi lay nekk. bon loolu ñu consommer ko pour. foog ñu consommer ko pour xam ko quoi. Mhm. léegi ñun aussi loolu moo nekk suñu premier objectif boo xam ne dinañ nañ ko suñu processus. Mhm. pour que nit ñi loolu lañ njëkk a gis nag. Mhm. loolu lañ njëkk a gis si produit parce que a ñu Michel non.

tubaab yi da gis gis caakiri soow soow bi neex trop caakiri bi wow parce que ñu ko ñaar caakiri da nga koy jël sa temps tay ko ñaari yoon pour mu mun a nooy euh, deuxième mooy damay jënd cere si michel bon man mën naa jënd cere ci si si benn maire su ma xëyee cere bi ënd cox bi moo koy def cox bi moo koy def cox bi day transformé wu léegi euh, ñu suñu produit man uskud laa damay dem camp cere bi su ma ko defee ci saag bi première fois bi ma demee mm-hmm. camp Euh, dëkk Modou Lo la woon fàttali leen ma. Fandeen euh, Fandeen. Fandeen hmm. la woon ma jël cere doo ko sama sac pendant trois jours maa ngi si camp bi. Hmm. cere bi ma ko génnee jour parce que commencé gu ma woon Bokatan quoi bi ma ko génnee cere bi. deful dara quoi. Hmm. après ma dem mel maire cere bi nanu mu nekk trois jours sama biir sac takku ko ci mbuus deful dara mu toog jës expliqué ma ne ma cox bi la. cof bi ba boo ko dindee si produit ak suuf si rek. Mhm. cere bi day yàgg. moo tax genre soo xëyee. loolu facteur yooyu moo tax soo xëyee cere bi day yàqu cere bi day mhm. ënd mhm. bon cere bi sànqal bi nag souvent ñii dañ naan day am ay ay euh, bon ay affaires yu ndaw yu si nekk di dox ay gunóor ak ay gunóor loolu aussi si dugub bi la dugub bi soo jëlee sa temps bees ko ba mu set soo beesee ba mu set nga euh, kii ko na sotti si ndox weeraat dugub bi ba dugub bi wow mhm. na soog ko dem nag soog ko lu sànqal mais lépp mais lépp mhm. c'est c'est à base de de de mil wala wala. c'est à base de mil yokkuñu si dara. Mhm. juste que ñu suñ processus genre gudd. pour que pour fournir client bi. produit bu baax. mais ñi ñi jël cere ñi jël cere bu bu buñ koy wala ji raxaal ci ceeb. wala ñu raxal ci beneen produit pour pour xamal dañuy dañuy dañuy xamal dañuy tamiser xamal dañu koy waxee noonu ndax ndax loolu ci ci obligatoire nga jël booy wala ji nga yokk ci parce que dama gis temps xale bu ñu <laughs> bu ñu wala ñu def ci cur ceeb <laughs> daal nga kii ndax ceeb bi c'est obligatoire wala pour euh, daal euh, a rafet ci wala pour lan la woon noonu waaw bon ñun ceeb bi caakiri bi lañ koy def parce que dugub bi soo ko sebetee ba pare ndox bi day diis pour machine ba. Mhm. mais ceeb bi moo ko. ceeb bi moo koy nooyal. Mhm. te ceeb bi aussi euh, ceeb bi genre ceeb aussi dafa am ay vertus yoo xam ne c'est bon pour la santé. moom la ñu koy utiliser ak euh, dugub bi pour que bu mu ñuul aussi. Mhm. parce que soo jëlee dugub kese day ñuul kooku. Ah. ceeb bi aussi c'est pour changer la couleur. changer couleur kon bii la ci def ceeb. waaw dañ ciy def ceeb. mais bëriwul quoi pour que couleur bi mun a leer nii. soo defee dugub kese day ñuul. Mm-hmm. léegi pour cere bi cere séeréer la ñuy def dugub kese mooy cere bu ñuul bi. Ah, léegi nag ñun dañuy jël mboq. ah da ngeen da ngeen defar cere yu bëri quoi. waaw waaw bon benn façon cere la ñuy defar mais on fait sur commande ku bëgg eh, ne cere séeréer laa bëgg wala cere mboq. léegi bu bu bu bëggee cere tukulóor la lu ci mel ni njóor ni eh, est-ce que di ngeen di ngeen liggéey ak ñoom. waaw waaw bon bon on est si <laughs> ah. <laughs> ñun ñu koy laajte ah mais pour si dugub euh, li mu jur moo bari. Ah. Mhm. dugub li mu jur moo importance bi. ah da ngeen fa jamono ji ñu ne la ñu am ngeen njóor ne waaw dañu fa ay njóor ni ngurbaan ngurbaan ak njóor ni lañ doon hésité ba la ñuy commencé def instant hmm. yi ngurbaan la da def hmm. ngurbaan mooy laaxu caaxaana hmm. laaxu caaxaan dañ koy def ci waaw dañ koy togg dañ koy togg di ko jaay Euh, chaque samedi lañ koy def chaque samedi. Mm-hmm. événement yi aussi ñi dañuy woo pour ñu toggal leen ngurbaan. Mm-hmm. léegi depuis un mois mois de janvier bi toggul ngurbaan. ngurbaan nag mënu ma ko togg ngurbaan <laughs> taajo moo koy togg. mooy mais mais on peut s'attendre à à ce ngeen di créer yéen pour yoo xamante dérivé lu ci mel ne ay gar yi. Mm-hmm. nga xamante ne suñu mbokk burkinabé yeeg mbokk camerounais dañ ko bëgg. ak ak lu ci mel ne ay. aceke ak yenn ñu ngi siy xalaat bu baax a baax sax aussi <laughs> fond mbokk bi aussi. yaatal waaw yaatal mbokk bi mbokk mbokk caakiri mbokk parce que dem naa Ziguinchor gis naa sax caakiri mhm. euh, caakiri à partir de bon base euh, mango. de mango yi. oui bon yooyu yëpp gis naa ko. cere mango cere mango cere mango yooyu yëpp ko c' était vraiment parce que looy gën di dem di gën a découvrir dugub li mu mun a def après bon après nga xam qualité bi quoi li mu mun a def. ah en tout cas am na solo produit macha allah set na. te lekk yu muy ña genre ñam yi. Hmm. nga xam ne moo baax ci yaram. Hmm. surtout xale ndaw yi nga xam ne bu ñu hmm. bu ñuy jàng ji. ñuy euh, consommer yi daf cee baax. loo xam ne boo ko lekkee digestion bi day baax. moo gën tout le temps ngi lekk ceeb ceeb yoo xam ne surtout suñu ceebu. mais nga nga a yoo xam ne da nga koy lekk mu tàkk. Sénégalais Sénégalais moo bëgg ceeb mais mais hmm. produit yu fi nekk lu mel ne lu mel ne mën nañ ci am affaire bëri bëri yoo xamante ne bu nañ mën a valoriser mais problème bi moom mooy euh, ni nan nan lañ valoriser ba nit ñi bëgg ko voilà hmm. moo nekk problème bu Sénégalais yi bëri bëri bëri foofu euh, tey pour ñu pour nit yi lan nga jàpp ne war nañ mën lan la war nañ ko mën a def ñu mën a consommer lépp produit boo xam ne Sénégal la nekk bàyyi produit yoo xam ne extérieur nekk lan nga jàpp ne tey bu nga ko defoon tey ban politique bi ñu ko taxawalee nit ci dinañ consommer li nga xam ne fii la nekk parce que jusqu'à présent ñi ngi consommer yoo xam ne extérieur la jóge ak est-ce que euh, consommation locale mën na euh, yokk suñu économie mën na booster suñu ko effectivement man bon sama réponse su ma koy commencer si kaw laay commencer ah déjà souvent dañuy wax état Sénégal euh, entreprise yu mag yi Euh, ñoo war a valoriser entreprise yu ndaw yi léegi euh, ñii jox doole entreprise yu mag yi di leen may force pour pas ñu jox entreprise yu ndaw yi force léegi importation ak exportation aussi ci la euh, su ma nee importation produit yu dugg moo produit yi génn bon man mun naa toog ay deux mois yoo xam ne du ma livrer extérieur mm-hmm. après ñii dañ koy woote Michel ñi ki day nekk ay Maroc ne Michel bëgg naa caakiri de mm-hmm. bëgg naa cere mais soo jajalee li bul yóbbu ko rek GP bi parfois dañ si fay dix neuf mille francs boo xam ne benn deux kilos la wala benn trois kilos bon là aussi du encourager ni ñi nit ki nekk extérieur mun na. Hmm. yow tu es obligé da nga yokk produit bi. waaw bon yokk produit bi léegi aussi ñun ñu nekk fii ah ñun ñu nekk fii déjà ñu ñu ambassadeur produit bi ñu ñoo war a valoriser valoriser produit nan lañ koy valoriser mooy euh, wan nit ki. nit ki lu mu bëgg daal parce que ñun ñooy déjà Mbogotaan su defaroon produit bu baaxul nit ki day dem fee dem jënd local. dem fee dem jënd tibi léegi ñun aussi entreprise yi ñoo war a defar produit bu baax. parce que nit ki euh, guddi gi surtout joueurs yi ak sportif yi. Mhm. ñoom ñoo koy bëgg laax mhm. guddi en couche couchant lañ koy wooye. Mhm. ñoom ñoo xam ne couchant Mbogotaan lañ koy wooye. loolu la quoi foofu la ñu war a commencer pour mun a valoriser et aussi grande surface yi certes mu ngi si. mais ñu ñu gën ko dolli. Mm-hmm. ñu gën ko dolli mu nekk si bitig yoo ba à proximité nit waaye nit ki fu mu mun a nekk. mun a jot si produit yi produits locaux yi. Hmm. mais sànq sànq da ngaa ne euh, entreprise jàppale wuñu leen parce que damay gis ne euh, entreprise yu bëri yoo xamante ne dañuy defar ay produits caakiri ngeen faral di yi ngeen ñoo xamante ne ay pël lañ am nañ defar ay sow ngeen defar caakiri ngeen ay production bopp ay pot de yoo xamante ne dem di ko di ko livrer ci yi di ko livrer de grande surface yi nit ñi di ko ñëw di jënd parce que gis naa ay ay surface yoon ñu fii ci bi banlieue bi mais ñoom daam ñoom ñoom ñooy defar euh, caagiri ñëw di leen ko jaay au lieu muy nekk yi nga xamante ne day jógee euh, ci yenn euh, entreprise yu mag yu ni mais est ce que yéen ngi dox dox ci yooyu waaw ñu ngi dox ci yooyu te aussi comme liggéeyu loxo la ku nekk ak ni ngay liggéey ku nekk ni ngay liggéey loolu bon parfois loolu mooy nekk frein bi hmm. parfois loolu mooy nekk di nga wóolu produit nit ki mais sa client produit bi sa nit ki su tàmmee ci agri bu nooy wala nit ki su sa cere hmm. ba nga jël yóbbu ko si keneen nit ko aussi il foog nga sensibiliser ko ne ko nit kii nii ambassadeur la pour mun a yóbbu produit fu sori hmm. léegi loolu la quoi mais dañuy def ko ñu ñëwaat que pack bi euh, entrepreneur yomb la entrepreneur il faut ngay partager hmm. loo am xam ne yàlla moo la ko jox loo amul xam ne yàlla moo la ko xañ quoi léegi pack bi dañuy woo ay entrepreneur yoo xam ne comme dañuy jaay cere dañuy jaay caakiri moo woo leen bi am nañ commande yëpp nu ñu ko gérer. léegi jàppale leen ñu ñu wax leen ñun nii liggéey cere bi bon euh, caakiri bi il faut nga sebet ko tu ça après ñoom ñu ne amul problème Michel li nga bëgg noonu dinañ ko defaral ba ñu satisfaire client yëpp ah. loolu moo tax ko mais bon parfois liggéey bi day bëgg ñu jël lépp duñ bëgg ñu jël lépp on veut partager. Mhm. yéen seen i difficulté seen i jafe-jafe depuis ba nga taxawalee Mbogotaan c'est quoi exactement. Euh, difficulté bi parfois financière la difficulté si financière. soo leen bénéficier de l'aide. bon am nañu première suñu première euh, bénéficier wu nañ benn fons financement équipe depuis loolu moom la ñu fonctionné ah depuis moom la ñu ñaata. 500000. Euh, moom 510 000 exactement moom lañ démarré ah. Mm-hmm. depuis lors ñu ngi dem bon ñu ngi xuus ah. te aussi am na ay structures yoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale. Mm-hmm. côté formation. parce que nit ki nekkul xaalis kese ngay soxla. nekkul xaalis kese dañuy parfois ñu soxla ay formation ay leadership la formation ay développement personnel la. formation gestion financière la. structures yi jàppale ñu. comme Impact ay AICS ñu ñu jàppale pour que yooyu noonu ñu acquérir ko ba pare balaa ñu jël xaalis. difficulté bi loolu la ah. léegi difficulté bi aussi parfois instant bu amaguñu local boo xam ne c'est c'est notre local ah. certes ñu ngi ci super ci yenn supérette yi di leen jaay ñu ngi recevoir ay commandes ñu ngi livre mais amaguñ boutique boo xam ne typiquement ñun la suñu produit lay jaay wala produit locaux spécialement lay jaay. Mhm. te loolu bëgg nañ ko parcelle bëgg nañ ko fo boutique boo xam ne dangay naan non man instant bi envie ah dama am envie dellu suñu village quoi nit ku bëggul wax nit ku wax loolu noonu fi ñu koy yóbbu amaguñ bitig boobu noonu man mm. xamuma ko bokk mm. mm. bon boo xam ne mbokkataan day bitig boo xam ne spécialement c'est les produits locaux produits bio mais parlant de formation ndax yéen yéen da ngeen dañ leen di jox ay formation mais est-ce que da ngeen former ay nit aussi parce que di nga am sama benn mbokk boo xamante ne danaan waaw man de damaa sama soxna mu mënul ara wala mënul lii est-ce que bu ko yóbbu ci waa mbokkataa ñu jàngal ko naka naka la ñuy arawee moom mu ñëw nga jàngal ko après moom moom mu fay mu xam na naka la ñuy arawee euh, cere naka la ñuy arawee yi ndax yow di ngeen am genre cas nit ñooy dafa bëgg jàng ngeen jàngal ko moom mu fay leen ngeen jàngal ko waaw waaw dañuy am cas yooyu te aussi dafa bëri de telle sorte que instant bi comme pac baa ngi ñëw dañu bëgg ja parce que dañu nit ki nga jàngale soo jàngalee nit dangay gën a jàng léegi loolu la quoi léegi pak bi euh, dañuy def léegi ñu créé benn Google form boo xam ne mm-hmm. ku bëgg da ngay inscrire si bi mm-hmm. da ngay inscrire si base bi bon formation gratuite la mm-hmm. parce que on a di vous vous avez reçu gratuitement donné gratuitement léegi euh, formation yi araw lay commencé parce que ñu bëri dañu naan Michel sama jëkkër dem bëgg araw fonde mm-hmm. léegi euh, dañuy jàngal araw fonde quoi mm-hmm. léegi bi moo bi njëkkee commencé concept boobu noonu ñi nee na est-ce que doo leen perdre seen client bon soo xoolee première vue dangay ngay mm-hmm. perdre sa client mais dangay jàngal nit ki kooku aussi xamoo fu muy jàngalaatee ba processus bi dem pour que suñu concept suñu première vision Euh, valoriser les produits locaux vision boobu noonu foofu lay commencer. Mm-hmm. mais mais jàngale yëpp dina am dina am benn benn euh, genre astuce bu ndaw boo xamante ne dañ koy téye ne dañ koy. comme Coca Cola rek parce que Coca na moom dafa am loo xam ne genre seen ingrédients cinq personnes ñoo xam je pense. Mm-hmm. bon loolu aussi ñun production usine la ñuy def. Mm-hmm. bon euh, comme jàngalekat ah parce que jàngalekat da ngay fier ne sa élève moo tabax li wala moo def lii quoi mm. loolu liggéey loxo la rek nit ku mm. nekk aussi ak caaj bi nga koy defee parce que bon euh, certes mun nga bañ a def araw mais mun nga gën a gaaw caakiri ku nekk ak li valeur ajoutée bi ngay am daal mm. léegi loolu la quoi nit ku nekk dañuy jàngal mais dañu ne yow aussi am na loo xam ne yaa koy apporter produit bi pour que nga mun a mun quoi parce que début bi bi may jaay cere taliba euh, dama doon gis maire bi suy takk cere ji takk bi day kii quoi takk takk bi day xaw a kii léegi ma ne xaaral su may ñëw te mel ni sama takk bopp ko pour que xaw a a xaw a am tuuti lu may yokk si cere pour que ñii si ñëwee xamee ma hmm. léegi su ma ñëwee damay ñëw takk cere bi ñii di ma xool may jël distance di takk pour que client bi kese mun a jël temps mun a reetaan mun a nekk à l'aise ak man hmm. léegi au fur et à mesure ñuy dem bon pour que ku nekk ñëw Euh, affaire bi yaatu quoi. mos ngeen participer ci ay foire ak yooyu doon. waaw bon euh, dañuy participer ci ay foire euh, certes participer guñ mm-hmm. ay foire mm-hmm. ay rencontre mais la ma tamit ñu naan foire yi foire yi parce que dañ naan amul sens parce que da ngay dem exposer rek nit ñi parce que ñu ñëw rek. Mm-hmm. romb nii xool xool produit yi yëkkati après tegaat bi jënd lan moo waral ñu naan foire yi parce ñoom li ngeen ci def sax du du ngeen ko amaat loolu waral loolu. waaw mun naa ne nit ki comme que. ku mosu ñam produit bi ku mosu ñam produit bi su gisee caakiri bi da koy yëkkati rek ne ah bon mos naa gis caakiri bi tegaat ko mais soo indee caakiri soow def ko si kopp nga ne ko bon yaa moom lien mu ñam su demee dina tourné ñëwaat parce que dina ne yow caakiri bi loo ko defaree nga ne woon na caakiri bi sachet bi laa ko defaree mhm. mais nag bon lu ñu bëri loolu lañ am amu entreprise yu bëri amuñu produit yoo xam ne se ci agroalimentaire nga xam ne moom produit yoo xam duñ ko consommer quoi mais soo amee produit consommé souvent suñuy def laax parfois dañuy def laax sax. Mm-hmm. on évite nos clients journée porte ouverte kër ga. ñoo leen kaay ñam produit bi quoi tey moom mbokotaan day maye. Mm-hmm. lekki caaki lekki cere soo demee non am na ko mos a benn jour ma monsieur dama tëdd gént gént caakiri quoi. Mm-hmm. gént mbokotaan loolu noonu ñam bi moo ko waral quoi. loolu moo tax foire yi souvent. ñii duñ jël seen temps xool parce que dañ koy gis si bitig yi dañuy yëngal nii teg après dem ko nit ki soo ko ñamalee sa produit produit bi surtout ñu ñoo koy waxal ñu ñoo koy doxal mais moom mii moom mooy jaay boppam. Mm-hmm. am na solo merci beaucoup ci leeral yi daanaka sept minutes moo ñu desel euh, peut-être boo amoon message booy lancé jeune bi nga xam ne dafa pare euh, pare na jàngam am na master am wala am na doctorat am wala am na licence am toog na mi ngi xaar nguur gi jox ko liggéey. waaw euh, damay déglu Dipa ah. Dip mooy naa loo ñeme ñàkk entrepreneur day ñeme ñàkk te aussi day naa ñeme risqué da ngay ñeme risqué ah nit ku ñemewul wul ñàkk dara xam naa doo si a lancé wu ko léegi euh, aussi entourage bi ah entourage bi nit ki da ngay tànn ñi ngay àndal parce que soo buggee commencé dara nga wax dara rek ñii ne la non yii loolu dafa métti automatiquement sa bopp da ngay ay doute quoi. léegi loolu laa bëgg wax entrepreneur ñi bëgg a commencé ñu commencé gu ñu nekk si yoon bi ak ñu yegg aussi ku nekk jàppale sa morom pour que euh, ki commencé gul ki bëgg a commencé euh, am fit dem. Hmm. am fit la fit kese la nga yor dix mille francs nga dem ko ci këpp xaar yàlla. te aussi gëm yàlla la mhm. ah. grosso moo bon mooy yooyu laa mooy wax. Mhm. gëm yàlla la am fit la ñeme ñàkk la. te bañ a xeeb te ba sa bañ a naan li liggéey jigéen la li liggéey góor la. ndax tey Michel mii bu amuloon état d'esprit bi ma am nii du dugg mhm. ci li nga xam ne liggéey jigéen la ba di ko def te macha allah tey je pense que yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax a baax. waaw waaw bon cere bi moom man sa guddi cere laay lekk. ku ñëw suñu kër sax xamee na ma. cër mais soo bëggee wér gu yaram yii ngay lekk. bon li ma si tension yi bëri na diabète yi bëri na. nit ñaa ngi dee comme pas mm. possible lan moo ñu ko yóbbee lekk mm. yàpp tëdd nelaw. Mm-hmm, mm-hmm, lekk loo xam ne dafa niin diwlin bu bëri bi tëdd nelaw xorom bu bëri bi tëdd nelaw te pourtant on a des produit yoo xam ne euh, macha allah boo koy consommé nice tu digères. nice nice mhm. da ngay digérer boo yeewoo da ngay am envie lekkaat. non cere gi nga reere loo <laughs> xam ne ay tufe yoo xam ne da nga koy reere boo yeew boo yow tu as du mal à manger. parce que mhm. li nga lekk reesu. Mhm. te xam nga yooyu daf lay yóbbee ay feebar. voilà voilà c'est ça nañ ciy bàyyi xel mbokk yi am me que euh, suñu temps jeex na. donc moom na joxe kii na joxe ay contact pour ñi nga xamante ne peut être. waaw euh, numéro téléphone bi mooy 77 ans 627 18 70. 77 627 18 70. ñu ngi Instagram. Rama Mbogotane céréales ñu ngi Instagram soo dugg automatiquement di nga gis story à la une ñu ngi Facebook aussi Mbogotane céréales. Mhm. aussi ñu ngi TikTok. Mbogotane mhm. céréales. Mhm. Ah, grosso modo dem leen abonné ji dem leen abonné ji. Oh. gis leen cere ji gis leen caakiri n'hésitez pas à commander vite fait la livreur yi ñu ngi seen ginnaaw di. waaw ay maalaw la ay alburax yu gaaw sax. <laughs> <laughs> boo commandé rek ñu indi la ko. Mor amoo benn dernière question. waaw non question sax mais juste day nekk euh, genre euh, contribution rek pour li nga xamante ni mi ngi koy parce que sànq tudd na euh, li nga xamante ni moom mooy moom mooy cosaanu séeréer te ku seen xel mi ngi ci au moins ñu créer leen loo xamante ni bu ñu amee espace produit yi nga xamante ne wala boog lekk yi nga xamante ne séeréer dañ koy faral di seen dëkk bu ñu fii duñ a lekk ñu ko boolee seen bu soom benn mbokk séeréer bu mel ne Sylvie dégg na ñu ne am na ngurbaan wala am na benn mm-hmm. ñemee ni ah démb lekk na euh, c'est euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa mbokkataan euh, plate euh, sangam donc di ngeen dem ba nit ñi dañuy ñëw sax di di di di di reer ci foofu parce que produit yooyu daanaka du gis ci yeen ci restaurant yi parce que bëriwul restaurant traditionnel yu fi am mhm. donc euh, loolu moo nit ñi dañ koy fa mhm. mhm. euh, koy bëgg mais aussi mu leen di xaar aussi euh, da ciy baax donc ñu ñu lay euh, jaajëfal di nuyu ñi nga xam ne ñoo lay ñoo lay euh, bi ku ci mel ne Moustapha Sy tudd coach yu ak ki nga xamante ni mooy Abdou Khader Ndiaye aussi mhm. ñu ngi lay suivre di la encouragé ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ngay def merci beaucoup Mor Fall donc man dama koy encouragé bu baax ndax liggéey bi ñuy def am na solo consommer local la ñu wax tey bu ñëpp doon consommer li nga xam ne Sénégal lañ ko defaree je pense que tey du ñu toog ba di dëkk bi di amee ay wàllum yére di wàllum li ñuy lekk lépp li nga xam ne daal ñu ngi koy jëfandikoo am nañ ko fii te war nañ ko mën a utiliser war nañ ko mën a valoriser ba tey ñu de jóge extérieur ñëw fii di ko jël di ko yóbbu seeni dëkk kon nag ñun euh, noonu rek la mën a def ba suñu ko mën a sukkaliku Michel euh, euh, merci d'être là ma bàyyi la nga tàggatoo oh, bon bi passé damaa demoon rajo ah. ñu ne ma dangaa wax ba pare waxoo séeréer waaw foogale séeréer ma koy simna noonu foppan mi xëy maxey simna nuun xeɗa euh, nuun nu damno keke neke euh, maa ngi nuyu ñëpp ko lim juum nos partenaires nos clients nos rois mhm. tout le monde qui aime Mbokatan qui consomme Mbokatan qui mhm. participe à Mbokatan mhm. i nu ñu ne jaajëfal et vous dire que n'oubliez pas de fréquenter les gens heureux car le e est contagieux amen merci beaucoup Michel merci euh, mu doon ñaax Michel Ngor agroalimentaire ñu koy jaajëfal bu baax d'être là parce que c'est pas évident di leen ñaanal seen entreprise dem ba toll comme les mamelles jabootan pour ne pas de pub euh, di gërëm euh, Léon Paul Mendy mi nekkoon ci cabine technique bi mu ngi lay signaler bu yàgg temps bi jeex na <laughs> merci beaucoup